waa Sen Mobi TV te dañu ñëw tey si une nouvelle vidéo te dañ leen wan tey naka ngeen di def bay mën a def ay publicité ci Facebook comme ni ngeen ko xamee parfois mën ngeen balaay Facebook di seetaan di xool ay photo seen ak ba si yaa gis benn publication boo xam dañ leen defal annonce ci kaw moo xam ay produit la moo xam ay vente en ligne moo xam ay lu mën a doon xam nga ñu defal la annonce ci kaw maanaam kooku dafa fay pour euh, Facebook defal ko annonce te loolu lañ bëgg ñëw tey wan leen lan lañ koy defee facilement comme ni leen ko waxee woon annonce boo leen ko bëggee def il faut ngeen am page Facebook comme ni ngeen ko xamee page Facebook wane woon nañ na la ñuy créer page Facebook waaye defoon nañ si vidéo tey nag dañ leen bëgg ñëw tey wan leen naka ngeen def ba créer benn annonce moo xam ngeen di def jaay ngeen di bëgg a jaay bëgg large de personnes gis ko ñu bëree bëri gis ko moo xam benn événement xew ngeen bëgg ko defal annonce ñëpp gis ko et cetera te loolu leen bëgg ñëw tey wan leen ko facilement. waaye annonce nag boo leen koy def il faut ngeen fay da ngeen di fay te tamit il faut am li ñuy wax mooy compte banque wala carte bancaire waaw euh, si paiement vidéo mën nañ leen koon woon jaru ngeen ci parce que Free Money indi na loo xam lu yomb la mooy carte Free Money yi ngeen di gis quoi li ñu naan euh, carte xale gab comme ni ñu ko waxee noonu am na benn carte boo xam free money la 2500 euh, lay jël j'espère que am na boo xam virtuel la 1000 francs la carte boobu boo ko amee euh, master card la li mën a def annonce ci Fema vidéo bi nañ leen wan carte boobu ni muy mel nañ ko def sur forme de vidéo wan leen ko defee di ngeen comprendre nga xam am nañ compte banque aussi mën nañ utiliser seen carte prépayée wala seen carte débit bi mais da fay li lay fay nag supposons ñu dugg nii si suñ compte Facebook comme ni ngeen ko gisee ni maintenant léegi bu ñu duggee si suñ Facebook actuellement ñu ngi nii si suñ Facebook comme ni ngeen ko gisee xam ngeen ñu ngi nii si suñ Facebook déjà ñu ngi nii di balaay léegi bu fekkee da nga bëgg def annonce bi c'est facile da ngay ñëw oui comme ni ñu ko waxee bu da ngeen bëgg def annonce bi c'est facile da ngeen ñëw si seen page Facebook ngeen war a ñëw oui boo leen bëggee génnee seen page Facebook nag c'est facile da ngeen di ñëw si seen trois traits yi nekk à euh, à. à droit du moins oui à droite bu fekkee Facebook live bi ngeen yor Facebook live laa utiliser mais ñaari Facebook yëpp ko mën fépp foo leen mën a dem ba gis seen page rek page bi nga xam ne yéen a ko moomal seen bopp yéen a ko créé fa ngeen di cliquer maintenant léegi ñu cliquer fii si trois traiteurs yi léegi cliquer nañ ci gis ngeen dugg nañ fii nii actuellement léegi suñ page moo nekk nii comme ni ngeen ko gisee seen mobile TV gis ngeen ko nii bii moo nekk suñ page Facebook gis mooy suñ page seen mobile TV léegi dañ siy cliquer. gis ngeen cliqué nañ ci suñ page Facebook seen mobile TV gis ngeen léegi dañuy wàcc gis ngeen suñ page Facebook moo nekk nii xam nga léegi dañuy wàcc gis nga bu ñu wàccee ni actuellement ñu wàcc wàcc ba ci publication yi gis ngeen ko ni léegi publication yi ñoo nekk nii léegi ñu xool ban publication lañ bëgg a defal annonce pour nit ñëpp gis ko wala ni pour nit ñu bëree bëri di ko gis et cetera léegi mu nekk publication bi ngeen gis ni bii nii ngeen benn lien benn lien YouTube laa fi partagé

boo cliquer bosse cette publication manam nga bossé ko manam jëm ko may audience mu am doole quoi légui bu ñu si cliquer gis ngeen publication ba ngi gis nga légui bi ñu ba ci suuf gis ngeen lim ñi defal fi objectif encourager les visiteurs en ligne gis nga montrer votre publicité aux personnes susceptibles de cliquer sur le URL qui contient qu'elle contient ñu ko pour nit ñi lien bi nga pour vidéo et cetera gis nga defal légui affaire bi automatique manam dañoy Ben, intelligente la homme et femme à 18 ans 65 ans xam nga euh, benn lieu ak huit entrées xam nga léegi man la la may dagg mooy dix euros xam nga dix euros à peu près ay cinq mille et cetera ça dépend loolu la quoi léegi nee na ma couverture quotidienne maanaam ci benn jour diggante deux mille euh, quatre cent personnes jusqu'à sept mille cent personnes mën nañ gis affaire bi waaw mën nañ nombre ba nga xam ne estimé nañ ko ñi xam ne ñoom ñooy gis publication bi ci par jour moom la ma wan nii et cetera mais ça dépend bu la neexee mën nga ñëw fii nga modifier budget bi bu fekkee yow 10 euros dafa bëri ci yow wala dafa tuuti ci yow dangay ñëw fii nii modifier le budget boo fi cliquer maintenant léegi gis nga mën nga fay 5 euros ça dépend 5 euros mën na nekk ay 3000 4000 je ne sais pas euro moom day augmenter wàññeeku boo leen demee Google mën ngeen ko xam calculer ko bu fekkee tamit di euros dafa tuuti ci yow mën nga yokk 25 euros gis nga. di diggante six mille cent personnes jusqu'à dix-sept mille personnes mën nañ gis publicité bi nga xam ne yaa ngi koy def cinquante euros gis nga boo ko fayee tamit diggante douze mille personnes jusqu'à trente-cinq mille personnes mën nañ ko gis cent euros boo ko fayee ji vingt-quatre mille personnes jusqu'à soixante-dix mille personnes soixante-onze mille personnes mën nañ ko gis gis nga bu la neex fi mën nga def sa budget personnalisé exemple nga fay deux cent euros et cetera fii nga koy ñëw nga bind ko bu ko defee fi ngay def sa personnel lay doon quoi mais gis nga fii votre publicité lu ma bindal fii nii nee na ma votre publicité sera divisée pendant quatre jours avec une budget de total de 10 euros nee na ma bis moo fay 10 euros yi publicité bi nga xam maa ngi ko bëgg a def dinañ ko publier diggante 4 jours ma loolu nag bu la neexee mën ngaa publier 5 jours et cetera une semaine un mois et cetera yow loolu yow lay neex. loolu nag boo ko bëggee def fii ngay ñëw fii xam nga fi war nañ leen budget bi maanaam xaalis bi nga war a fay ak nombre de personnes yu ngay gis fii nag recommandation fii dañ ma ko dañ ma recommandé quatre euh, jours yi quoi mais ma neexee mën naa cliquer fii bu ko defee ma yokk ko moo xam ma def fii nii une semaine exemple ma ma defee une semaine rek nombre nit ñi day wàññeeku nag ngeen xam ko gis nga ma defee une semaine muñ génnaatee ngeen xool pour budget di di dix dollars yi di dix di mas gis nga léegi wàññi na ko def mille 400 euh, personnes jusqu'à 4000 personnes gis nga légui moko ko ben jour nombre nit ñi day gëna yok légui néma xol moko moo ben jour ñen xol nombre nit yi ko war a gis day gëna yok ça dépasse rek gis nga gis nga légui néma 9000 personnes jusqu'à 28000 personnes ci ben jour bi etc. cetera mais yéenay xool leen en bu ko defee ngeen def ko exemple ma def li nga xam ne namako muy quatre personnes mais mais muy quatre jours du mois les quatre jours yi mën naa fay di euros euh, chaque jour benn euh, deux mille quatre cent personnes jusqu'à sept mille cent personnes mën nañ gis sama publication waaw te mën nañ si cliquer dem seetaan sama vidéo YouTube et cetera waaw ngeen gis fii nii mu ne ma mode de paiement comme li ma leen doon wax sànq mode de paiement bi nga choisir léegi fii la comme fi ngay fayee ko ñoom nag seen fay par carte bancaire la wala nga am PayPal wax nañ leen ko sànq. compte paypal ngay am te compte paypal faale nga lié ko ak sa compte bancaire et léegi bu ñu si cliqué ñu wal leen nga xaar mu charge yi comme ni ngeen ko gisee ni gis ngeen ne am na benn mode de bu ma use mooy bi terminé 58 59 lii nag mastercard bu free money la quoi comme ni ngeen ko xamee free money léegi dañoo créé carte bancaire yu bees muy mastercard free money les cartes yooyu 2500 lay jot bu fekkee da ngeen bëgg def Euh, publicité Facebook mën ngeen utiliser carte yooyu boo leen defee recharge de Free Money moo xam 5000 et cetera mën ngeen def publicité par Facebook et cetera wala yeneen site yi quoi bu fekkee da nga yor beneen carte mën nga ñëw fii ni bu ko defee nga def carte débit ou crédit gis nga carte débit ou crédit carte dugal ci kii yi pour pour pour carte euh, kii et cetera waaw gis nga léegi boo ñëwee fii sa tour bi nga xam ne pour nga ajouté sa carte bancaire bi laa lay wan ni gis nga dèjà compte bi dama ko ajouté pare moo tax mënu ma ci ñëwaat mais da ngay ñëw fii nii carte débit ou crédit fi ngay ñëw cliquer boo fi cliquer maintenant si suuf ngay def fii suivant comme ni nga gisee nii suivant bu fekkee am nga carte Free Money après wala beneen carte bancaire boo mën a am rek après ni leen war na muy mel léegi bu ko defee yow sa tur ngay ajouté fii nii gis nga noo bi nekk sa carte bi moom ngay ajouté fii nii moo xam sa tur nu mu nekk et léegi boo ko ajusté foofu complet boo bindee sa tur fii ba mu ba mu egg léegi numéro carte bi mooy numéro bi nga xam ne day nekk ci ginnaaw carte bi et moom ngay dugal fii nii léegi fii mois ak année bi carte bi war a jeex fii CVV euh, la ci carte bi lay nekk su tamit nga dugal ko boo paree da ngay def enregistré rek automatiquement carte bi dina enregistré wu quoi comme ni ngeen ko gisee comme ni mu enregistré woon nii noonu lay carte bi enregistré wu mais bu fekkee yoroo carte tam tamit faaw moom carte mais carte bi moo gën a yomb léegi boo ko defee pare maintenant mën nga def fermer. pare nga ci quoi léegi mën nga def fermer mu ko defee ñu wan leen waaw léegi def nañ fermer gis nga léegi ajouté nañ suñ compte banque exemple sélectionné nañ nombre de jours yi mu war a daw et cetera comme ni ngeen ko gisee nombre de jours yi def nañ quatre jours yu muy recommandé yow na ba la neex mën nga def une semaine un mois et cetera mais ça dépend looy gën yokk jours yi rek nombre de personnes day wàññeeku boo bëggee nombre de personnes yu bëri da ngay gën yokk xaalis bi quoi wan lañ leen ko kaw léegi budget bi def nañ ko. voilà les euh, paiement bi votre publicité sera divisée pendant 4 jours gis nga war nañu ko budget bi 10 euros comme nous le leen c'est 10 euros la ñuy fay 4 jours de publicité etc. cetera waaw ngeen xam ko nous bu leen neexee tamit fii nii dañuy audience intelligent moom moo ñu ko defal mais bu leen neexee tamit yow mën nga jël sa temps bu ko defee fii nga ñëw sélectionné nga xool publicité bi fan fan nga bëgg exemple ñaata euh, personnes yi nga xam Par gis exemple personne 13 ans jusqu'à 50 ans etc. xam nga bu la neexee mën nga modifier fii euh, choisir yan personne nga bëgg ñu koy gis bu la neexee mën nga choisir fii yan pays yi nga bëgg publicité bi dafa daw et cetera mais yooyu dafay gën a compliqué mais bu la neexee mën ngeen ko defal seen bopp mais ñu dañu choisir YouTube bi nga kii Facebook bi nga xam ne moom moo ñu ko defal muy intelligente bi moo tax léegi boo paree da ngay ñëw fii def booster la publication gis nga bu ñu defee booster la publication léegi ñu wan leen dañuy patienter maintenant. de fait c'est la publication gis nga nous retard euh, à prévoir en raison du Covid du coronavirus Mais la publicité en raison du coronavirus moo tax tard retard votre publicité a nous indiquerons euh, si elle respecte nos règlements euh, ou nous dans les 24 heures maximum dans l'espace public gis nga nañu 24 heures publication bi bàyyi ko mu jàll terminé nga xool léegi publication bi ñu ngi vérifier ñu publication bi ñu xam def publication gis le 27 gis nga dépensé dollar euro gis affaire en cours d'examination quoi avant suba affaire bi approuvé nañ ko bi commencé quoi xam ne ñu ngi def annonce bu leen neexee mën nañ fay cliquer seetaan xam nga bu leen neexee tamit mën nañ commenter et cetera ñu bare bëri nañ ko gis quoi puisque dañoo fay ñu defal ñu publicité fay nañ 10 euros pour ñu defal ñu publicité comme ni ñu leen ko promettre woon carte free money bi moo nekk nii quoi j'espère que gis ngeen ko bi moo leen ko amee di ngeen mën a def euh, publicité yi leen doon wan sànq di ngeen ko mën a def transaction yi oui facilement quoi moo xam Facebook et Euh, j'espère que comprendre gis ngeen moo nekk nii quoi pour plus de sécurité moo tax ma bu numéro yi mais moo nekk nii gis ngeen carte Free Money bi la quoi boo ko amee rek da ngeen mën a def transaction yi gis nga facilement moo xam Facebook et cetera carte bi ngeen fexe jënd rek 2500 lay jor j'espère que xaw ma bu bu bu virtuel bi mooy jor 1000 francs quoi boo ko amee di ngeen mën a def publicité yi boo leen ko bëggee et cetera j'espère que affaire bi neex na ñu leen wax ngeen abonné ci bi tey partager vidéo yi ok jaa ngeen jëf